kidi you. Telegram mais condamné nañ ko six mois avec sursis bataille tey Zeyna ci ça se discuter du 9 décembre amna ben polémique boo maintenir juddu na fi fan yu ñu génn manam li jëm ci walu financement parti politique dañuy naan parti politique yi manam tay dafa am ño xamanteni ay force lañu yo xamanteni maintenir étrangère nekkuñu suñu bir réew ñom ñoy financer parti politique yi lu tax ñi leen di financer di leen jox xaliss manam dañuy sukkandiku ci ben intérêt bo xamanteni ni amaana ñuy financer. pour ëllëg ak ci biir su nekkee président de la république am ay privilèges yoo xamante daf leen koy jagleel te loolu yaakaar naa ni fii ci Sénégal loi da koy tere parti politique mën nga am xaalis ci kaw jaay ay carte membre parti politique mën nga def ay activité yoo xamante ne yu légal la ci biir réew mi nga xamante ni parti politique bi loolu lay amee xaalis pour am benn fonctionnement mais gis nañu souvent parti politique dafa am ay forces étrangères ñenn ñi doon ay hommes d'affaires di yëkkati xaalis di ko jox parti politique yi di ko jaarale ci ay voies yoo xamante ne yu illégal la su ñu nee voie bu illégale rek maanaam jaarul yoon parce que lepp lu jaar yoon légal la dafa am légal am illégalité kon donc jaarul yoon ñi gis ne que yag na fi am de Sangor Abdou Diouf Ablaye Wade ba ci Macky Sall yag nañ ko dégg ndaxte déggoon nañ fi ki nga xamanteni moy Abdou Diouf doon accusé ki nga xamanteni moy Abdoulaye Wade ne ki di Khadafi di président Libye moko ko doon financé pour que mu doxal parti démocratique sénégalaise waaye mujjul fenn ñu gisaat ni que kii di Ablaye Wade bi mu ñëwee mu ne Macky Sall aussi dafa am ay homme d'affaires yu nekk Gabon du ko financer xaalis donc homme d'affaires yooyu lan Madame ñuy bëgg maanaam dañ lay nattal natt bi mooy lan mooy ñi ngi ci combat pour ëllëg ak ci biir soo présent président de la république man homme d'affaires la businessman la damay soxla ay marché ay appel d'offres comme lu mel ni ay tabax ay tali wala gagner yenn marché de fourniture pour que yow it nga mën ci sédd voilà mais beaucoup de ñi nga force occulte lañu suñu né force occulte Madame mu ñoo xamante ne dañu leen di dégg ci walu dañ di ci terrorisme de leen di dégg ci walu lo xamanteni day jaxassé réew tay so xolé Mali dañ fay jihadisme dafa bari motax ngay d'état des femmes, manam armée di renverser pouvoir bi manam démocratie amu fa parce que démocratie mi ngi am fi nga xamanteni tay dafa am population bi sen kaddu votel nit ki sànnil ka kaas ni xam ki dafa gagner au suffrage universel direct so xolé lu melni niger Niger loolu dafay am ndax te ay territoire jihadiste lañ so xolé lu melni Burkina tey so xolé lu melni ni yeneen te ñooñu dañu jógee Sénégal bokku ci Afrique de l'Ouest tay Sénégal ñu tollu ben jamono bo xamanteni pétrole daf fi am gaz am fi souvent ñu ne dëkk bu am pétrole am gaz souvent moy dëkk yi ëpp guerre parce que occidentaux yi maanaam force occulte yi dañuy jël sen bët tek ko ci réew momu parce que pétrole ak gaz dafa bokk ci luy dundal comme koomu réew parce que soo xoolee Nigéria li fay am ci ay manifestation li fay am ci ay reyante digënté côté chrétien yi ak digënté côté musulman yi dañuy gis ni dafay ndax té pétrole ak gaz bi moko ko donc ci biir lolu am benn parti politique ba fi juddoon muy parti Pastef yalla dogal ñu dissoudre ko té Ousmane Sonko jité woon ko mu bokk ci langue politique bi nak indi fi ben radicalisme ci biir radicalisme bobu nak dañuy gis ni que amna

Ousmane Sonko bëggoon loolu mu méngoo kii nga xamante ni coup d'état la bëggoon yàlla bi dara teewul gars yi téye ko foofu ca Koungheul yóbbu ko këram ñu toog ba benn jamono am ay rumeurs yuy circulé ci biir rumeurs yooyu ñu dégg ni que am benn député bu taxaw assemblée nationale di kii nga xamante ni mooy Matar Diop muy séance plénière parce que ak nu mu mënta demee tamit séance plénière lépp lu fa député wax maanaam dafa am loo xamante ni daf ko protégé muy immunité parlementaire am immunité parlementaire am foofu mu yëkkati fa ne am na benn parti politique boo xamante ni Ousmane Sonko Madame dafa femme, ay force euh, occulte, forces occultes ay lobby financé Khalis verse nañu xaalis pour bëri ci compte mais joxewul montant bi ba Madame, qui di Ousmane Sonko négocié pour le ci sous délai réuni, Madame, contrat pétrole yi nga Sénégal ba ñu 2024 le ko renégocier le ni koy le ba nga mu yëkkatiwaat beneen ba nga xamante ni gisoon nañu ñoom opposition bi di coalition Yewwi Askan bi doonoon ko ji état du Sénégal dugal ko ci nopp kër kilifa diine yi maanaam xam ne ni que Macky Sall dafa bëgg a daganal li nga xamante ni mooy LGBT maanaam moy goor jigéen lesbienne ñu daganal ko fi ci Sénégal que nit ku nekk am nga choix choisir loola neex mu doonoon ay fenn kessa yi nga xamanteni ñom ñoko utiliser ko woon ba noppi ñi dal di dégg Ousmane Sonko bi doon jiiñ lolu Macky Sall momit mi ngi négocier ak ay nit yo xamanteni tay ëllëg ak ci su nekké président de la République dina daganal lolu ci réew mi ba ñooñu di yëkëti xaaliss di ko financer ndaxte amna na benn ONG bu nekk Sénégal suñu fàttaliko atum 2019 euh, bi Ousmane Sonko di dem ci élection présidentielle yi ñooñu jàppale woon nañ ko ci xaaliss muy Oxfam te ku xam Oxfam xam na ni mom da fay dolel li nga xamanteni moy LGBT di affaireu góor jigéen donc xaalis bobu tay mën prouver lolu ci biir lolu ñu ne no plénière la assemblée député bi waxam kenn waru ko déglu voilà parce que xam na ni dara du ko ci fekk même suñ ko porter plainte plénière la ko waxee ñëpp ak fay waxe député bi delu ci wat génn plénière dem radio RFM dal di réitérer les mêmes propos qu'il avait dit tay yow ci sa jàngat soo amoon benn analyse boo ci def lan lay doon. en moom li mu wax peut-être dafa am fi mu ko parce que sa sagam waxee na ko foo xam ne dañ koo protégé mu génn fa demaat foo xamante ne bu ñu ko toppoon ci yoon ñu téye donc yaakaar naa am na fu mu ko te nag wax yi mu wax boo gestoo am na lu muy duru duñ ne dëgg la parce que amuñu ci firnde yoo xamante ne mën nañ ne dëgg la mais xel bi njëriñ lu dul xalaat moom bu waxee loolu ak Ousmane Sonko mi ñu xam parce que bo xolé ci kanam tuti xamna dinañ ñu baxé vidéo bi dafa am ño xamantene dem nañ ba ne état bi mo gëna informé wu manam biñu démé diko di ko la ci kungel dafa am li tax ñu dem jël Ousmane Sonko Ousmane Sonko tollul li tax ay ay ay GIGN gendarmerie police yépp buuxoo dem diko ko jëli mom kessé dafa am li tax ñu dem jël Ousmane Sonko c'était juste peut-être pour protéger Ousmane Sonko ndax nak dafa am xaalis boo xamante lekk na ko te waru ko lekk mais ñooñu ko ku lekk seen xaalis euh, di ko lekk waaye du respect. d' accord est ce que régie du ñu jox vidéo bi nga xamante ni kii di Matar Diop confirmé waat na ko foofu ca RFM régie su dee vidéo bi disponible na ngeen yónnee ñu ko. ban intérêt la am pour wax pour wax ne day renégocier day renégocier contrat pétrole daf ci am intérêt. nekkoon ci ginnaaw doon ko pousse bu mu jël

waaye procureur moom waxuguma ay waxam moom mooy xool kan la war a wax ak kañ la war a am te man daal li ma war mooy leeral askan wi leeral naa askan wi est-ce mhm, yaa ngi yaa ngi confirmer ni que président de la république jot na lettre boo xamante ni jóge na ci Ousmane Sonko ngir mu protéger famille am euh, lobby yi ngay wax noonu bañ a rey famille bi mais waxuma rey xam nga problème mooy li ma wax dafa leer président de la république mën nga nekk ci mën nga nekk ci mën nga nekk ko président de la nga nekk sa ko te ñaari façon dee moo question euh, lan moy sa preuve yi wane ni que lu ngay wax ni deug la. yooyu dama dul wax ba le moment venu dina ci le moment venu li ma wax sama preuve ak sama source du bako wax. mais le moment venu bu jotee pour nek ci côté askan wi dina ko def. di Matar Diop di député ben mbok yakar kon Zeyna yaakaar naa ni ñoo déggandoo propos yi nga xamante ni kii di Matar Diop di l'honorable député bokk ci coalition Benno Bokk yakar yëkkati waat na ko maanaam réaffirmé waat li nga xamante ni moom waxoon na ko foofa ci assemblée nationale donte ñi bokk ci Ousmane Sonko dañu génnoon di dal ci kawam ne ay waxam jël ta déglu maanaam ay waxu accusation la yàgg nañ ko dégg yàgg nañ ko gis donc euh, plénière la ko waxee xam na ni dara du ko fekk mais nañu jàpp ni ay accusation yu garaaw la. parce que en tant que Ousmane Sonko yoroon parti ñu dissoudre ko nga bëgg a jiite réew mi am mbooloo bu topp ci ginnaaw ñu jiñ la li nga xamante ni lu illégal la te yow nga doon woote sa bopp que ci yoon ngay tegu demoon bay accuser ni que Sénégal dafa lié ak France moo tax ñu jox ko lépp alors que yow am nga beneen combat boo xamante yaa ngi ko bëgg a jox naar yi Matar Diop ñëw confirmer lan moo waroon nekk tey rôle ñii nga xamante ni ñoo bokk ci Ousmane Sonko est-ce que du woon ay firnde. tegal ko ni que kii lu mu wax du dëgg au lieu que pour balay réverbam parce que chaque jour ñu gis que député bu bokk ci Ousmane Sonko taxaw assemblée nationale yëkkati ay accusation teg ko ci gouvernement du Sénégal teg ko ci état du Sénégal teg ko ci ay ministres teg ko ci ay nit ba ci mujj Ousmane Sonko assemblée nationale la ndëkk taxaw accusé ni que député yi du fay impôt alors que loolu ay fenn kese la woon ñu prouver que lii amul ñëpp teg ci seen bët Guy Marius Sagna chaque jour mu taxaw accusé qui dit Antoine John, qui dit ministre des finances qui dit Moustapha Ba ministre de la justice nous leen di accusé tey nga déggaat ki nga xamanteni moy Matar Diop yoxna propos yi Tay lan mo waron don ñi nga xamanteni ño and ak Ousmane Sonko ak ñi nga xamanteni ay juriste lañu ay constitutionnaliste lañu ak ci journaliste parce que du pas CPM mais am na yenn journalistes on dirait que dañuy top phénomène information au lieu que ñu geussu indi la part des choses comme nous ñu éthique ak déontologie manam nga que jox lan ci ak mais ñom ñep dañuy ci communication bo des acteurs politiques ñom ñokoy mëne té ku nekk xamna acteurs malhonnêteté intellectuelle sëgg ci ben hypocrisie bo xamanteni ni ñuko taxaw ba paré sukkandiku ci ben manipulation ak ben effet de communication bo xamanteni c'est mensongère tay ki bi mu réaffirmé propos bi ban taxaway ñi and ak Ousmane Sonko lañu ñu war a comme ñoom ñoo yag nek di dénigrer bi yon boule bi tourner ci sen camp ñu melni ñu jëfoo. d'abord ñoo ñu indi firme indi preuve ni li mu wax amul mu bañ a yem ci ay wax kese wala ci ay polémique kese hmm. euh, beneen bi ci topp mooy euh, journaliste yi nañ dem gëstu parce que lii c'est information de taille la te yaakaar naa sénégalais yi war nañu mën a am lu leer ci mbir yi. Ah. parce que nag Ousmane ko da doon woote l'homme parfait da doon woote ki nga xamante ne nekk na impôt domaine musul lekk fu dërëm mosul sàcc donc je pense que ñoom ñi ànd ak Ousmane Sonko seen wareef seen devoir mooy ñu prouver li kii li muy wax nii ne du dëkk. d'accord parce que nag wax kii euh, li mu wax. Mhm. boo xoolee Ousmane Sonko 6 mois en arrière. Mhm. dafa jàppoon ni dafay mais yàlla moo xam kiy toog am na ci am na ci xalaatam am na ci sañ-sañam. moom ma ma ku ko waxoon ni prison lay nekk kenn du ay waxam ci wàllu présidentiel du bëgg. waaw loolu mooy wane nekk yàlla mooy dogal. donc wax yi Matar wax nañ dem gëstuwaat ko yi am nañ ci part de responsabilité nag. sa sa sa mbokk yi. waaw suñu mbokk yi am nañ ci part responsabilité parce que depuis l'avènement Ousmane Sonko dafa am benn presse boo xamante ni dootuñu ay presse. maanaam su ñu nee presse këru taskatu xibaar xibaar la mais dafa am ay nit yu incarné këru taskatu xibaar yooyu nit ñooñu suñu demee ba wàccoog seen charte seen éthique ak seen déontologie taxaw ci plateau yi di continuer di wax li nga xamante ni askan bi lañ faroon toogal ñenn ñi dañoo ragal ñenn ñi dañoo encaissé parce que orange bo na yeeg wéy ñu ngi fii liste bi xam nañ leen mais ba tey ci Matar Diop bu waxee yemul foofu dañu dem kii di journaliste Cheikh Yérim Seck ku nekk xam ne que c'est grand analyste mm-hmm. homme boo il a des informations yo xamanteni ni journalistes yu bëri mënuñoo fa egg ba fa information parce que yalla moko ko may yalla daf ko may mu commencé carrière am ci Jeune Afrique mu nek à l'international fréquenté ay pays Afrique yu bëri ci ay chefs d'État yu bëri kooku taxaw ñew xayma yëkëti ben montant su ko xayma mu tollu ci 20 millions de dollars 20 millions de dollars so ko xaymaa ci CFA mu tollu ci 12 millions 155 millions ma jambal Diagne ñëw confirmer la même chose ben journal bu nek France ñu dippee ko canard enchaîné ku nek xam na ni canard enchaîné du diffuser information bo xamanteni du amul véracité wala enquête ko wala dem ba ci biir xam na ni que 90% yi suñ ko xolé lepp deug lay doon ñooñu ñëw yàkkaat ko tek ko ci kaw plateau bi alors que tay canal enchaîné bobu nek France journal yi nek Sénégal taxaw ci plateau yi ku ne xef ñu Ousmane Sonko Ousmane Sonko duñu gis Ousmane Sonko lan mo leen tere won def seen liggéey ba nga xamanteni canard enchaîné bobu su ko génné ñom dana ci mëna a sëkkandiku lan lañu dëkk def commencé tam dem Cheikh ilim sekk du wax katu dëgg dem nañu ba dégg ben comédien bo xamanteni mom fan rek la def adunaam taxaw ci ben plateau wal Fadjri ne Cheikh ilim sekk su amé costume bu bess émission bu bess sos bu bess alors que mom ba mu juddoo ba tay ji ba tollu ni mu toll ci fen ak sauce ak fenal nit ñi ak fenal gor ñi mom lañ ko xamé ba mu dugg bir kasso ba génn kasso taxaw ci plateau yi tak ko soxna sax ci fenal la ko takkee ndaxte su jaaroon ci yoon fu mu wara jaar moom xamna muy ko xamanteni ni kat international la sénégalais yëpp xam ko ndaxte sa yu toogee wax dara yàlla mo koy weddi fi mu toog teewut mu am jom gatch di ko ray mu tok ci benn plateau bo xamanteni tay mën nañ jàpp plateau bobu c'est uniquement pour dénigrer ñi du bax yi di défendre uniquement Ousmane Sonko ño xam luñu ñu leen ñamal ak luñu ñu leen soosal

loolu am tey au lieu que mu am benn véracité information mais dafa am mel ni yenn plateau yi nga xamante ne tey ñoo gën a nekk en envergure tey ñoom ñu nekk ci plateau yi muy journaliste yi dafay mel ni léegi benn journaliste ngay gis muy présentatrice émission bi ay chroniqueur kese lañ fay teg après indi ay militants yi nga xamante ne parti boobu la di jël benn contrepartie par rapport li nga xamante ne arrangé wu leen nag je crois que xel du jëriñ dootul xalaat tey suñu waxee loolu Canard enchaîné wax ko dafa am fu mu ko teg Cheikh Yérim Seck wax ko dafa am fu mu ko teg Madiambal Diagne wax am fu mu ko teg sànq ci sa biir wax wax nga ko lan moo jëlee Ousmane Sonko Koungheul indi ko fii nga xamante ni mooy Ndakaaru dañu war a fàttaliku Ousmane Sonko bi ñu nee procès ak Adji Sarr si la daw dem Ziguinchor làqatu ji ne def naa désobéissance civique bi procès bi jeexee la ñibbisi parce que Ousmane Sonko yàgg naa toog ci plateau man leen aduna du neex ba Ousmane Sonko jàkkaarloog Adji na ko mais Ousmane Ousmane Sonko ba ñu dessus dossier ci la dee wax benn nemmeeku tour arrêté nemmeeku tour bi ñëw directement Kër de si siège j'ai mis def euh, point de presse jour la taxaw Je wax français bu jub mooy bu muy naan dañ ko liquide. Mm. mu toxicité toxicité de tox toxicité de parce que santé que Ousmane Sonko est perturbé C'est quand même koy xam vous communication ak lecture dimanche, mm-hmm. contextuel, Ousmane Sonko est perturbé Baka avocat de jugement Ousmane Sonko c'est loolu yollee ko les dem toogi Ziguinchor ne def naa obéissance civique dootuma collaborer avec sa justice mm-hmm. kon xam nañu Ousmane Sonko amna ben peur par rapport à l'histoire, c'est ça ça mm-hmm. ci Ousmane Sonko bi ñu def déclaration lan la nous avons les moyens de rendre ce pays ingouvernable on va semer le chaos dans ce pays su ma leen ko waxee gëm leen ko ndax a moyens yi xam kañ la ak fan la ak naka tog leen déglu rek su leen nangam sangam Olof Ndiaye nak nee na ku ñemee dañ laa mm-hmm. Ousmane Sonko est-ce que déewuñu ko ba su del dellu def ben hypothèse ak ben parenthèse journaliste yi lay waxal ñu xol ni que parti Pastef bi ñu arrêté Ousmane Sonko le premier euh, le 27 euh, juillet dañu xey ñu tas parti bi lan moo tax ñu tas parti bi décret présidentiel bu jaar ministère de l'Intérieur ci kaw dañu am ay éléments ak ay firnde de xamante ni dafa woné ni que parti bi kat dafa nek en complicité avec des entreprises terroristes ku nek xam ni terroriste jamono ji dafa lëmbe réew mi partout à travers le monde ñu tas parti boobu ñu waroon sukkandiku ci loolu ñu toogaat fi Macky Sall dem 78e assemblée générale des Nations Unies ay journalistes France 24 jàkkaarloog Macky Sall laaj ko ni que est-ce amul benn société civile bu naan da nga bëgg a benn candidat. mu ne amul kenn ku ñu bëgg a éliminer parce que dañu jàpp ni que parti boo xamante ne tekkuwul ci ay charte ak loi yu ko réew bi constitué dañ lay tas ni mu amee Sénégal noonu la amee France noonu la amee fenn chaque jour France tas ay parti dañu dem ni que dafa am ay entreprise terroriste yoo xamante ne dañ nekk en complicité avec parti boobu di Ousmane Sonko di Pastef moo tax ñu dissoudre ko ba noppi am na ay financement sax yoo xamante ni jógee na foofu ca biir France bi ngeen nekk jaar ci compte Ousmane Sonko am fu ñu ko pour blanchir comme un blanchiment de capitaux te loolu yaakaar naa ni Moodban confirmé na ko ci benn émission bu mu doon def ak avec des documents à l'appui en citant un chiffre de huit mille euros voilà ñu jógee waat foofu tey ñu wat benen document bo xamante ni Canard enchaîné mom moko def au lieu que tay ñi andak Ousmane Sonko joxé des preuves ou bien Ousmane Sonko porter des plaintes pour diffamation donte assemblée nationale lako Matar Diop waxee mën na porter plainte Matar Diop parce que Matar Diop génnaat na assemblée nationale dem ci beneen Canard bo xamante moy mooy RFM waxee ko fa. kon du Matar Diop moo koy dem pour si procureur né ko ubbil enquête ci kaw li ma wax Matar Diop du ko def. Matar Diop lan moy waré fam moy en tant que député du peuple mu alerté. Mm. alerte nak su amé le procureur autosaisir wu ba nopi ba Ousmane Sonko porte plainte mu yobbu ay documents am a defuñu ci ay jéego mu assemblée nationale man kat def def la justice def kon Matar na ku taxaw ci plateau ne Matar job na dem euh, yobbu euh, ay wala nangam sangam ak kërti kërti c'est pas à lui de fournir des preuves il a il a alerté le peuple sénégalais parce que rôle Moy, en tant que député n'est que pour ci assemblée nationale le deuxième pouvoir du pouvoir législatif Le plus mu que c'est anormal il alerte ko Nico Guy Marius Sagna di defee ni Abbas Fall di fait, Nico Biram Birame Souleye Diop di defee L'Assemblée nationale Momit non la ko defee pourquoi ba Pastef am benn pensée unique ñoom l'union a wax c'est mooy Il mm-hmm. ñaata yoon la Guy Marius Sagna wax est-ce que wax dit waxu Guy Marius Sagna bu ngeen ko du ñaata la de Fall wax est ce que wax nañu bu leen déglu wax de Fall la kii wax nu est ce que wax nañu du pourquoi benn Matar Diop wax respecter la personne de Matar Diop ñu bëgg la personne de Guy de Birame Diop au détriment de Matar Diop waa euh, ex il faut qu'il ait raison garder donc dans la vie il faut que toujours ñu am préservation boo xamante dañ koy étiqueté équilibre ah, équilibre nag xam nga lan nga xool wax bi mu wax fan la ko jëlee dem naa nag ba ñuy gis ni que ñu ne yàgg na fi am depuis Abdou Diouf Senghor nangam su dee loolu mooy continuer dam ba tey jii ñu xam ne ni que on est en retard te su ñuy def comparaison il faut comparer deux choses qui sont comparables tey li Abdou Diouf doon accusé Ablaye Wade bokkul ak tey li ñu accusé Ousmane Sonko newuñu woon Ablaye Wade ay terroriste la àndal wala ay jihadiste lutte antiterroriste ñëpp a koy xeex ci aduna bi yëpp parce que lu yàqu ci aduna tey terroriste yi ñoom ñoo ko yàq muy Mali muy Niger muy Burkina Faso muy Nigéria lépp ay terroristes ñoo koy dugg jël ko jaxase ko yàq ko parce que dañu am beneen culte par rapport ak tey li ñuy dundee ci biir société bi. kon loolu sa xasee ba am tey am beneen vidéo boo xamante ne beneen waaye dafa indi confirmation yokkaat ci xar gi karaw mu dem ba wax ni que ban famille héritière bu nekk Qatar moo yónnee Ousmane Sonko vingt millions de dollars nañu seetaani vidéo bi dellu si waat Zeyna. vingt millions de dollars yi may dégg si Ousmane Sonko laa asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp wax nga dëgg temps yëpp ma ngi won ci loolu motax tal moon coow lii vingt millions de dollars yi nga xam ben nar famille héritier ñoko jox Ousmane Sonko balaa maa commencé je défie quiconque ci li may wax bu la nexé nga porte ma plainte Ousmane Sonko dafa am ben famille héritier bu nek Qatar bi ko jox 20 millions de dollars pour lan pour renégocier manam ñu négocier wat li nga xam moy pétrole ak sunu gaz bi ndax coowal Aliou Sall bi fi amoon Franck Timis ñoom ñu profité xam nga naari ñoom dañuy dégg dëkk ne am na pétrole dañuy daw investir léegi nag comme ñoom ak la plupart des sénégalais yi nekkoon fii biir Sénégal jàppoon ne Ousmane Sonko sera candidat en 2024 wala ñeneen ñi sax jàpp ne Ousmane Sonko day nekk président en 2024 ñoom naari ñu jàpp loolu ñu def ko comme genre parier rek miser seen xaalis dugal seen xaalis jël 20 millions de dollars maanaam muy 12 milliards si suñu xaalis jox ko Ousmane Sonko.

ñu débloquer leen pour ñu dem jëli ko parce que dañ koo naroon rey naar yi foofu lañ ko naroon fekk rey ko léegi na raison pour laquelle état de l' état euh, l' état mooy ki nga xam ne moo gën a informé wu lépp luy dugg lépp luy génn bi mu xamee loolu moo tax mu envoyé unité bu yem noonu dem jëli ko. ndax am déggoon naa sax ñu naan ay Ousmane Sonko dafa bind lettre Macky Sall. effectivement. bi bindoon na lettre son excellence monsieur le président Macky Sall pour nga xam ne président Macky Sall da koy protéger moom mii di Ousmane Sonko moom ak famem parce que il se sent menacé naar yi dañ ko bëggoon rey mais yow sous résidence surveillée biir këru Ousmane Sonko Ousmane Sonko donc lan moo tax plus de dix véhicules police ñëw taxaw ci buntu këram gendarmerie ñëpp wër kër gi. moom nak ñoko ko néna nee li tax wa GIGN police gendarmerie ñepp dem bu buuxoo di jël Sonko pour yóbbu ko këram jëlé ko Koungheul yóbbu ko këram c'est parce que naari yi dañ koo bëggoon rey té état nek na lo xamante ne ils sont plus informés que nous. moo tax parce que jamono yooyu lu daloon Ousmane Sonko duñ ci génne loxo état. Mm. donc lo état jël précaution dem jël Ousmane Sonko yóbbu ko fële juste pour protéger ko mais nag sénégalais comprendre ñu woon. Mm-hmm. jàpp nañ ni Ousmane Sonko dañ koy xeex dañ koo bëgg jël euh, fitna koo sonal ko mais xamuñu woon lan moo nekk ci biir exactement waa nag yaakaar naa leeral na loolu moom. waaw Zeyna xam nga mooy liy confirmer wax ji xam nga tey Matar Diop mënul alerter. Mm. Canal Cheikh Yérim Seck avancé chiffre Madiambal Diagne wax kii dellu soit yokkaat ci xar bi karaw ba xamal ni que ban couple héritier bu nekk Qatar ñoom ñoo jox kii nga xamante ne mooy Ousmane Sonko xaalis ku nekk xam na ni dëkk bu am pétrole te xam nañu négocié woon nañ fi benn contrat ba ñu tuddoon si turu Franck Timis ci biir loolu ñu jiiñ fi kii di Aliou Sall six mille milliards te ñoom ñoo ko jiiñoon Aliou Sall te biñ ko jiiñee lu tax ñoom ñu bëggoon ñu accepté bëgg

kon kii tey lu mu wax xel mën na kaa nangu mm-hmm. ndaxte tey Ousmane Sonko ba muy jógee Koungheul ñu koy jël di ko cag-cag di ko indi këram renseignements généraux ak état li mu meuna am du question yi dañ koy am rek ñu ñëw indi ko ci télévision taxaw wax ko dafa am yo xamanteni secret d'état la secret de polichinelle la dañ koy denc ba waxtu wax ca jot ñu war ko wax souvent damay dégg yenn ci ay journal taxaw ci plateau yi comme am nañu ay preuves yi nañ ko wax nañ ko joxe c'est pas à l'état de vous donner des preuves yéen journalistes yi yéen wala dem geustu yi am preuve yi xam naka la nan la waaye du ngeen tok seen place foog ni rédaction da ngay toog maquillage sante sañte ba neex ñu talal la caméra yi rek nga war am information je regrette ça c'est tout à fait contraire à la législation du journalisme. Le journalisme, quand tu entends quelque chose, à toi d'aller vers l'information vérifier gëstu creuser am ay éléments yo xamante dang koy téye mu don ay éléments yu fiable ay sources ba nga xamante soy argumenter say propos da ngay xam foko ko ba ëllëg ci biir suñ la woowee nga am foko ko mais c'est pas à l'état de sortir pour te donner les preuves renseignements généraux yu nekk ci état bi yow mënoo leen xamé tay nga romb ki nga xamante ni daf lay yalwaan may ma cent francs alors que renseignement généraux la suba nga romb benn genre dof mi ngi toog benn place sol ay yëru utile nekkate renseignement généraux la kon état su amé ay documents yo xamante c'est estampillé secret da koy denc boole ko ba enquête bi pare jouru atte ba job nag boobu lañ koy sont a mais quand yenn politiciens yi taxaw di plateau yi di wax nañu indi preuve yi nañuy wax dañuy jiiñ nangam sangam ñoom si seen bopp xam nañu état du doxee noonu su dee ñoom dañuy foog ne état là lay doxee donc c'est pas la peine de demander état parce que xamaguñu nous état di doxee état de am circuit am yoon boo xamante ni foofu lay jaare journaliste am circuit am yoon boo xamante ni foofu lay jaare kon donc certains journalistes yi tax ci plateau yi naan wooy nañu preuve yi nee nañu terroriste gens qui gisuñu benn terroriste enquête force occulte gisuñu ko ay force commando Pastef gisuñu ko boobu ñoom ñoo waroon gëstu kii ñu jiñ force commando lu tax ñu jiñ ko ko ñu def enquet topp ko toppaat ko ba ñu xam ne ni gis nañ ko état day topp ba pare am yenn éléments yi soog a la téye su la téye nag ci élément bi day continuer enquête am enquête boobu da koy continuer xool kan moo ci taqe kan moo ci laale mais tey état su amee benn preuve teg ko yow nga taqe woon ci laale si mais da ngay effacer da ngay daw sa état du la may dafay jël lépp mel ni xamul dara yow nga nekk ñi nga ne état xamul yow ngay continuer di continuer parfois am na ñoo xamante ne dañ leen di jàpp ñu nekk ci kaso bi mais dañuy mën a communiquer ak ñi nga xamante ne ñu ngi sont à l'extérieur tey ni trafiquant de drogue yi soo leen téyee bi mais teewul seen euh, gang di ko diriger su am na koo xamante ne dañ lay raylu mën nañu gis koo xamante ne penam mi ngi waaj a jeex mi ngi waaj a génne ñu woo ko ci biir kaso ñun soo génnee demal nga rayal ñu kii donc moo tax damay toll benn jamono parfois je me pose la question est-ce que les journalistes ñenn ci ay journalistes y a des journalistes informés ñenn ci ay journalistes qui ñoo gën a occupé plateau yi tous les jours ñu ngi ci plateau nous ñoom ngay gis ñoom ñoo alors que aani kasira xamuñu ko mm. ils sont que des orateurs maanaam dañuy delloowaat rek

douze milliards yooyu nag dama bëgg a indiwaat beneen élément boo xamante ni war na mën a coïncider waxuñu Ousmane Sonko jël na parce que amuñu ci preuve bu leer na. lu tax ma wax la ko parce que tey douze milliards pour mu dugg Sénégal lu yomb la xam loolu. gis naa benn journaliste je vais citer son nom Fatou Abdou Ndiaye bër maa ngi koy sant mu ne mais douze naka la mën a duggee ci Sénégal soit voie terrestre la mën a jaar voie maritime wala voie aérienne te kenn yëgu ko alors que douane a ngi fii sooy voyagé aéroport sax dañuy xool devise ñaata yoon la nit jaar aéroport te kenn kenn contrôlé wul devise ah ñaata yoon xam nga ñaata lañ la permettre pour nga voyager moom trois mille euros 3000 euros lañ ñii yor sa euh, euh, cinq mille euros ñi yor vingt mille euros jàll ak moom teg nit woowu leen aéroport du ñëpp la ñuy parfois nga am chance tombé ci ñu contrôler la parfois nga jël xaalis bi def sa poche yii nga jël keneen ki nga nekkal Zeyna dugalal ma mille sa sac kale dugalal ma deux sa sac deux fekk xam nga leen soo duggee ci avion bi nga ramasse sa xaalis dugal sa biir poche ça ne se vérifie pas moo tax Fatou Abdou Ndiaye bi mu waxee loolu ma ne ko au minimum na loo xamante ne war nga am expérience bi donc ne pose pas ce débat pour jéem a lëre sénégalais na fa dugg cent di jaar voie maritime te voie terrestre lay jaar oto su demee ba mën a jógee Europe di dugg biir Sénégal di jaar ci àll bi ci désert bi jaar Mauritanie dugg si su la neexee nga dugal xaalis bu la neex ci suufu siège ci ka soo amul chance ñu contrôler kenn du ko gis suñ la suñ la boolewul duñ la soupçonné ñu ci bëree ñu ñuy jàpp dafa am benn tóob boo xamante ni maanaam day bokk ci dil bi alam gisu ci avantage am moom mooy alerte policiers yi nga xam dañ lay xalaat fi nga nekk kon donc dama bëgg beneen vidéo bi nga xamante ni Adama Fall wax na ko muy ay vidéo muy kàddu yoo xam ne suñ ko méngalee mën nañu am sukkandiku tuuti indi ay éléments gën a rapproché enquête bi que douze milliards yi donc c'est lu avéré la nañu seeti Adama Fall dellu si waat bul Sénégal ba tey parce que ces cotisation là communication la rek l'argent foofu la waroon jaar damay wax def leen constat depuis que Hannibal a été arrêté ndax Kopar Express dox na

il peinait à dépasser les 50 millions. te or dans le temps ce ne woon koppar exprès paf 48 heures ñu regrouper la somme xam nga loolu lan la Je hmm. xaalis bi da doon transiter fi mu doon jógee. àgg ci benn dëkk fii ci sous-région bi waa ji Hannibal dugg biir dëkk boobu jël xaalis bi def ko ci saak dugg biir Sénégal c'est pas pour rien qu'on l'a arrêté. kon yaakaar naa ñoo ko déggandoo ñoo seetaanandoo li nga xamante ne aadama yëkkati na ko wax ko dafa mel ni wax yi dafa xaw a méngoo comme ni ko lekk na xaalis bi mais boo li mu wax ci kuy may saañaan ci GIGAM lépp loo xamante ne accusé nañ ko Ousmane Sonko bu ñu demee ba ci biir mën na am dinañ gis ne dëgg la. waaw Zeyna xam nga mooy lu ñuy wax rek xel du jëriñ lu dul parce que ñoom ñëpp mënuñoo wax loo xamante ne euh, teguwul ci yoon. xam nga xel du jëriñ lu dul xalaat. suñu yàlla sàkkee ñun ñu ay doomu aadama mu may ñu xel mu sàkk ay bàyyi ma mayu leen xel mu may bàyyi ma ñeenti cër mu may ñu ñeenti cër may bàyyi ma bopp may ñu bopp may ko nopp may ñu nopp may ko bët may ñu bët may ko gémmiñ may ñu gémmiñ sàkkal ko muy naan ndox sàkkal ñu ñuy naan ndox sàkkal ko muy lekk ñun ñuy lekk sàkkal ko muy dem ginnaaw kër di dem toilette ñun ñuy dem toilette ba noppi lenn moo ñu wutaleeg ñoom mooy xel Dieu nous a donné l'esprit xel nag du jëriñ lu dul xalaat ci biir xel boobu nag mu loolu moo ñu wutaleeg bàyyi ma kon xel boobu yàlla daf ñu ko may mënoo uniquement pour que ngeen liggéey ak seen intelligence ak seen esprit pour mën a xalaat lu war a mën a nekk dëgg ak lu war a mën a dégg dama lay jox benn exemple Serigne Touba lu waral mu dem Gabon bañ koy exile Gabon est-ce que xam nga lu ko waral lu waral ñaari rakk ya ca Ndar est-ce que xam nga lu ko waral jamono ji tubaab bi ñëwee ca bureau ba ca Ndar dañu convoqué quatre-vingt-trois marabout quatre dina ku ci ñëw signal ni que diine l'islam du diine bu dëggu Seydina Mouhamed yàlla yónni ko nga pare ñu jox la paquetu suukar yaa ngi may dégg bu baax. si 83 marabu yooyu 82 yi. ba ñu ñëwee ku ci nekk ragal na tubaab bi xam nañu lu ñuy wax du dëgg mais dañ ne nañ ko wax ren après ñu dem suñu yoon ku ci ñëw ne sëriñ tu euh, euh, euh, diine l'islam du diine bu dëggu Seydina Mouhamed yàlla yónni ko mennum sëriñ Touba moo taxaw ci buntu bureau bi. ànd ak kii nga xamante ni mooy Cheikh Ibra Fall si la Cheikh Ibra Fall fël taabalu tubaab bi sotti si woon ndox lal siñaate bi Sëriñ Tuubaa julli ñaari rakk moo waral ñaari rakk ya tubaab bi jaaxle mu ne ko fël li man yurit wa man yurit li ngay wax yow dégg naa ko man li may wax déggoo ko soxlawu ma interprète mu ne ko diine lislaam mooy diine bu dëgg Seydina Mohamed yàlla moo ko yónni foofu la tubaab bi mere takk Sëriñ Tuubaa dal di koy si la ko tubaab bi ne yàlla bi ngay naan am na wan ma yàlla tubaab bi ne na ko sëñ tubaa wan yàlla sëñ tubaa bi eh, ne ko pour ma wan la yàlla yow mi taxaw ne yàlla amul wan ma sa xel tubaab bi ne ko sama xel a nii mu ne ko déedéet wan ma sa bopp mu ne ko ngi nii mu sa bopp nga ma wan wanoo ma sa xel tey am sa xel mën nga ma ko woon yow xam nga ne am nga xel mais mënoo ma woon sa xel su ma la ma sa bop nga ne ni won ma sa beut gëna a nii wan ma sa bakkan won ma sa gemmi won ma sa bëñ won ma sa loxo won ma sa tànk won ma sa yaram mais won ma sa xel amul minde bu mëna woné xel te gëm nga ni yow ya nga xel bobu kon xel bobu yàlla daf ko samp ci ñun mu doon lo xamanteni c'est invisible kenn du ko gis te xam nañu mom lañu àndal kon xel bobu dañ ko wara xalaté kon tay yaakaar naa ni kay ku toog ci plateau nga déglu Adama Fall te lenn nga rencontré ci Adama Fall bu muy wax léegi lan lañ ci teg lan la ci waa ji teg su bëggee wax loo xamante ni arrangé wu leen rek ka nekk ci plateau bi da koy fël yow miy présenté nga xam ne que kii lu muy wax dëgg la buggoo askan bi dégg ko mais da ngeen koy fël mais tey ko xool Ousmane Sonko bu muy taxaw ne cotisé na 333 millions. ci mm-hmm. ñaata fan. Ousmane Sonko bu muy cotisé déglu ma 333 millions na le capitaine Touré dañu ne Copper Express ci ñaari fan cotisé nañ ko 320 millions. Mm-hmm. ñu jékki-jékki waat fii de ko nem seen nemmeeku tour dem Podor ji ne collecté nañu 400 millions. ñu ne dañuy jëndal Ousmane Sonko voiture blindée ñu ne collecté nañu 145 millions yaa ngi may dégg bu baax mm-hmm. suñu tourné ñu ne diaspora bi cotisé nañu temps ci biir wax jooju xam nga ni képp ku bokk ci Ousmane Sonko nekk ci diaspora bi xam nga yaa ngi xeex ngeen dëkk bi neexul mm-hmm. amul ku nekk ci diaspora bi nga nekk en conformité di liggéey localement am salaire boo xamante ni soo ci fayee sa kër mm-hmm. fay ci sa dund fay ci say taxe mën nga économiser lu toll 1000 euros amul si jeunes yooyu topp Ousmane Sonko amul ñenn ñi amuñu sax salaire. ku ko am foofu maanaam jaaykatu dorog nga wala sàccekatu carte jaamur nga maanaam di dóor hôtelu jaamur wala di sàcc di ci jënd ay oto di ko yónnee senegal di ko jaay ñooñu dong ko mën te ñooñu talluñu Ousmane Sonko ñu ngi seen ay business boo yi dem amuñu këyit jógee Sénégal amuñu këyit nekk Europe di àbb këyitu jaamur yi wala taxaw ci bopp koñ yi téléphone bu naar sàcc ñu ñëw jox la ko nga xool ni ngay dajalee téléphone yi yónnee ko Dakar ñu décoré ko di ko jaay ñooñu ñoo topp ci ginnaaw Ousmane Sonko les frustrés te ñooñu amuñu xaalis bu ñu cotiser ba mën la cotiser ben 20 millions. ci diiru weer ci diiru weer dama la koy wax rek. Mm-hmm. xam naa Europe xam naa leen ñoom ñëpp xam naa leen fu ñu mën a féetee parce que ku dem si seen kër yi xam nu ñuy dundee man xam naa nu ñuy dundee appartement yu daw la ñuy dëkk yu xat-xatloo parfois 10 ba 15 personnes ñooy dëkkandoo ci benn néeg parfois pour ñu lekk lekk bu baax dinañu toog ba fête jot wala benn samedi ñu dajale cotiser ko. kon ñooñu mënuñu cotiser Ousmane Sonko mais foofu lañ ko doon jaar parce que blanchiment carte papito dafa yomb pour ñoom 12 milliards yi day doon benn xaalis bu ñu def ci saako rek ñëw indi ko Sénégal déedéet ay tranche tranche lay jaar ak fu muy jaar tey oto yuy jógee Europe di ñëw Sénégal sax mën nañ ci dugal xaalis xaalis bi mën na ñëw ba yam Mali wala ba Mauritanie am kenn ku dugg ndànk dem jël ko jaar feneen ana ngañ dem tu Demba Touré génnul Sénégal ba dugg biir Mali. Mm. fa la jaar du voie terrestre. ana Ibrahima Sall génnul Sénégal ba dem Mali. ana Juan Branco jëlul avion wacce Gambie jaar ci yoonu suuf ba duggu dakar kon loolu lu yomb la quand j'entends Fat Abdou Ndiaye di naan xaalis boobu mënuñu ko fi duggal je crois que il n'a pas compris man en 2018 amna ben khalis bo xamanteni dañ ko bëggoon duggal France bu ñu waron blanchir khalis bi ñu ngi waroon jógee Brésil am ben way bu ma wo ne ma dañu am ben khalis bu nek Brésil dañ ko bëgg duggal Paris est-ce que mën nga bok ci deal bi wala ko bi proposer nañ ma mais won nañ ma ay voie yo xamanteni fofu lay jaar man chemin bi ma war jël ba fi ko wara acheminer ak fi ko wara acheminer ak kuko wara jël dil yoy yeb dama ko xam tok na fi aussi en 2021 am ben way bo xamanteni comme ni ñuy doré or bi Dubaï ben sénégalais la moy dor kar yi nek Dubaï dina ay talibé bay la talibé nangam dañuy gis nar bi ñu ne ko ñom am nañu ben bijoutier buy jaay or bu bari or bu baax amuñu dara légui waa woma dama tanche est-ce que mën na la jëndal billet légui légui bobu ma ngi paré nga ñëw Dubaï indaale sa passeport lenn rek laa soxla soo egsee ci naar bi neel yow yaay bijoutier bi yow yaa moom or bi nga joxe sa passeport ma jëndal la billet léegi suñu paree ma jox la dix mille euros muy six millions ma jékki-jékki ko kii dafa foog di lay waxal wala yomb na trop. Mm-hmm. jëndal la billet ñëw Dubaï yaa moom or bi nangam sangam amul mbokkam bu mu ko mën a defal amul rakk bu mu ko mën a defal man la koy defal ma ne ko d' accord ngi xaar sa billet yónnee ma sa passeport ba léegi jotul sama passeport léegi loolu lañ lay def nga dem ci naar bi nga ne yow yaa moom or bi ñu scanné sa passeport caméra yi jël la léegi yow pare nga moom mooy continuer transaction bi naar bi su waree jënd vingt kilo or vingt kilo or dafay joxe xaalisu vingt kilo or léegi yow nga ñëw au lieu que nga jaay ko vingt kilo or dix kilo or nga koy jaay dix kilo përëm nga jaxase ko mais dangay wuti ci benn papier xam nga or pour nga jaay ko foog nga jaar douane ak nangam da ngay wuti benn faux papier douane buy certifier que vingt kilo or yi jaar na yoon nga présenté ko papier boobu papier bi soo ko ko présenté ba noppi. moom mu jox la xaalis bi léegi yow nga livré ko vingt kilos or yooyu naar bi su jëlee vingt kilos or yi ba dem su demee ba ci biir day fekk dix kilos yi mooy or dix kilos yi baaxul légui rek fofu lañ lay porter plainte ñu ci bari ñu ci am problème ak or ñu na sàcc nañu amna ben pressure bu fa am problème bu mel noonu muy Tayib sosé xamna ñu jour mel non lañ ko naxé won ci 100 millions yi légui nak yow so xasee koku seey na naaw na parce que fo identité la yor yow mu yóbbu sa vraie identité papier bobu nak lañuy top topp ñu saisir ministère des affaires étrangères ñu ubbi enquête Sénégal lañ lay fekk ci yëpp yóbbu la ci kafa bi lekkoo tinoo naanoo alors que mom lek na ay centaine de millions alors que yow ben 6 millions lañ ci fay muy dil yo xamanteni dañ ko xam sëq koog ñoom xam nga ñoom parfois dañu lay gis nii rek nga nekk ci média am benn influence dañuy foog ne mais ñun sëq yóbbuwuñu alalu àdduna yóbbuwuñu kon yooyu yëpp dañu ko xam kon dugal fii lu toll maanaam douze milliards lu yomb la tey ku xayma li Adama Fall wax bërki démb Mame Mbaye Niang taxaw ne dafa demoon di saisir kër Ousmane Sonko ñu won ko këyit boo xamante ne Ousmane Sonko hypothéqué na këram bi nekk ci sa góor gi à neuf milliards jëlal neuf milliards nga yokk ci lii ñu wax 333 millions yi 320 millions yi 200 millions 100 millions une 145 millions yi ak yeneen yu ndaw a ndaw yu ñu jox Ndeye Khady Ndiaye ak nangam sangam ci soo ko xaymaa da lay xaw jox somme 12 milliards 155 ah millions donc ce que ñu bëggoon lewal te pour dugal 12 milliards ci réew mi lu yomb la ay transactions. la du xaalis bi ngay dugal parfois ci immobilier parfois gens gis nit kuy tax immeuble alors que am na benn waay bu nekk fële Qatar qui mooy financé mais yow da ngay créer ay factures des ay fausses factures Mais mel da nga ko liggéeyal virement yi di sa compte comme benn naar bëgg def benn blanchiment de capitaux ne temps sama entreprise nangam dama bëgg defal benn publi reportage ma dem Dubaï la yóbbu caméra yi ñu filmer entreprise am kii mooy jaay nangam sangam alors que loolu mi ngi ma ci fay millions léegi man dama koy defal facture trente millions trente millions boobu mu viré trente millions yi sama biir compte da koy virer sama compte man am naa justification parce que facture la liggéey la dafa légal léegi 30 millions yi su duggee sama biir compte 5 millions la ma waroon fay léegi su ma paree ma jël 25 millions yi jox ko mu tas ko ci biir dëkk muy lu lew noonu la ñuy branché des capitaux tey nga yor immeuble gis ku la koy tabaxal nga ne non fournisseur bi laay jël maanaam Chine la nekk wala Dubaï fa laay jënd jee matériels yi immobilier yeeg nangam loolu yëpp ci wàllu blanchiment de capitaux la maanaam dañuy lewal xaalis boo xamante ni dafa salte xaalis bu jógee ci drogue xaalis bu jógee ci yenn ay truc mais États-Unis parfois nga gis ay dëkk yu gën a garaaw états xaalis bi mooy dugg ci avion di wàcc ci biir états kon loolu lu yomb kon tànk suñ ko xaymaa tey dina toll loolu te Ousmane Sonko ku xool dafa avertiroon parce que bu muy naan dañu soxla tant de milliards. pour si élection yu ñu jëm donc préparé na neuf milliards yu mu hypothéqué kër gam parce que xaalis boobu la bëgg a lewal par rapport su fayul kër gi maanaam fay na ñële neuf milliards yi mooy garantie bi pour que ñu ne këram bi moo valeur neuf milliards alors que demeewul noonu kon donc loolu lu logique la lu ñu mën a jàpp la donc toujours il faut que gars yi di utiliser seen xel pour xalaat parce que tey loolu foog ñu ubbi ci enquête ku ci war a ubbi enquête nag mooy état du Sénégal parce que Ousmane Sonko état du Sénégal moo ko joxoon parti récépissé ñoom ñoo ko nanguwaat du tax ñu nangu ko ñoom xam nañ ko te ba ñuy nangu récépissé bi Sonko waxul yeeyu caabi te naar yi ku lekk seen xaalis dinañu fexe ba faat la wala faat si sa njaboot Ousmane Sonko bañ koy jàpp ci euh, Koungheul ku nekk xam na ne bi ñu jàppee Ousmane Sonko Koungheul ba dugal ko këram cinquante cinq jours ñu barricadé buntu kër Ousmane Sonko képp kuy wax dëgg gis na ne Ousmane Sonko communication dafa changé ñaata sorti la ci def bi mooy veille tabaski bi ba muy wax sëñ Cheikh Saliou moo ko may xar ba naan sama sikkin bi sax sama soxna di nga naan nanga kawat ak nangam sàngam Ousmane Sonko dulier vayam bu baax a baax ci biir bi muy dulier vayam boobu après loolu kañ la waxaat mooy bi waa France 24 ñëwee jël ko ci biir këram ba tey ji dégg nu mu waxee ba keroog ba ñuy dindi barricade bi gisuñu benn yoon Ousmane koo wax Ousmane Sonko dindi nañu barricade bi ci buntu këram usman Sonko mi rëy làmmiñ cere bi sax na laalo ñu jëlee la Koungheul ak lan moo tax ñu jëlee ko Koungheul yan information la état du Sénégal am renseignement généraux yi pour jëli Ousmane Sonko ndaxte balaa loolu am na benn station bi ñu tax woon gis benn oto bu fa nekk ay arme nekk fa ak ay munitions. Ousmane Sonko bañ koy jàpp ci àll bi est-ce que état bi amul renseignement boo xamante ni am na ñu bëggoon faagagal Ousmane Sonko te suñ ko faagagaloon dañuy accuser état du Sénégal ñoo dem ko Ousmane Sonko faagagal ko kon l'état du Sénégal a le droit de protéger Ousmane Sonko même suy saaga état dañ ko war a protéger parce qu'il est sénégalais kon état du Sénégal lépp lu mu warloog Ousmane Sonko def na ci àq ak yelleef kon ku taxaw ci plateau nga ne état du Sénégal respecté wul àq ak yelleef Ousmane Sonko je te dis que tu n'as pas dit la vérité mm-hmm. tu es un hypocrite ou bien da nga encagoulé wu ci benn maanaam li ñuy tuddee hypocrisie intellectuelle maanaam am nga xam-xam mais da nga jël xam-xam boobu teg ko indi benn hypocrisie ci sa kaw intellectuelle te jamono ji loolu moo pollué atmosphère Sénégal ba nga xamante ne kenn xameetul